asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu wax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb ci la Wassare TV tey nag euh, ñu ñëw seet koo xamante ni wax dëgg yàlla nekk na suñu papa joo xamante ni papa ju ñu bëgg ju ñu naw naam nag euh, ba muy dugg ci làmb ay tout tànk lañ mais tey nag ñu am contentement ñu fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb ak làmb instant bi ni mu tëddee ak li nga xamante ni moom mooy actualité bi mooy suñu papa Gaston Mbengue mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla duñu ko présenté kenn ndax nee naa leen su waxtaanee rek te bu waxtaanee nit ñi dañ ko mën a dégg papa maa ngi leen nuyu. yaa ngi de maa ngi leen fay di nuyu waa waa tasaare xuma wasaare làmb xanaa làmb sunu làmb ji du ko wasaare nag hmm? maa ngi leen di fay yéen ñëpp maa ngi leen nuyu bon kontaan naa trop da nga ñëw seet si ma tey nekk sama doom bon léeg-léeg aussi la jël nga ma wit ndax man neewoon naa ne sax dootuma waxati ci làmb ji mais quand même situation oblige. moo tax ñu lay ciy remercier ndax bu baax a baax ndax fattoon nañ la trop mais tamit wax dëgg yàlla da ngay wan ni ñun say doom lañ kon ni nga ko waxee rek papa euh, wax dëgg yàlla tey ku ne Gaston Mbengue nga ne làmb ñu bari sax man mi sax làmb moo tax ma ma kii la ma xam la. waaw ku ni woon Gaston Mbengue ni làmb léegi de mën na wax sax làmb saa ñuy wax Gaston Mbengue ah. mm-hmm. parce que xaw naa sori làmb ji tuuti. Mm-hmm. mais ba léegi it sunu aada la sunu cosaan la te moo modestie à part def naa ci loo xam ne aussi nag euh, kenn mënu ko fàtte ci Sénégal wala boog benn nit bu baax mënu ko fàtte donc euh, voilà donc euh, tey làmb ji daanaka yéen ñëpp da ngeen cee tiit parce que mi ngi bëgg a yàqu te ñi koy bëgg a yàq mooy milieu bi rek parce que millier bi aussi dafa bari nag ñoo xam ni doo xam sax lu nu bëgg wala ay yàqkat mu wala tamit tam sax léeg-léeg may wax ni làmb ji dafa bari naa feq te loolu mooy indi làmb temps yëpp bari na coow coow CNG coow Alioune Sarr coow arbitre yi ca ma xalaat ni man ci sama xalaatu bopp Alioune Sarr mérité wul lii làmb ji mérité wul parce que nag euh, ñun ñëpp ay mbokk lañu te euh, defante nu ay teraanga ci Alioune saar def na teraanga yu bëri ci làmb ji mu am euh, famille am ay doomam am lépp ba nga xam ni tey am na loo xam ni suñu ko koy teg damay wax ni ñi sax ndax ay nit lañu parce que koo xam ni seq ngeen teraanga seq ngeen lépp bokk dëkk ci réew mi nga taxaw ni rek tey naa xaawi suturaam dans par tous les moyens lu la wax ko lu la neex ko te nekk ci réseau yi ci presse bi lu nekk ngay wax ay nit ñoo xam ni man sax am naa ci mbetteel parce que am na ci koo xam ni barki dem sax dégg naa mu classement muy Boy rek mu classement kooku sama sama nit la sama xarit la dama dama dama tiit sax bi mu waxee ba tudd ma jéem naa ko woo ñaar yoon nanguwuma ñëwuma nanguwuma jël. ndax lan nga tiit. non parce que dama ko séenul woon moom ci loolu. parce que su ne Gaston bàyyi na làmb ji kon dafa war a génn ci làmb man moom moom moo ma gën a ji. ndax moom mënatul a dugg ci làmb ji. Ah, waaw mais mënatul amatul licence. man su ma neexee suba ma am licence. mais moom mënatul am licence. Hmm. te nag euh, vraiment du ma tontonteeg booy kay rek parce que sama sama nit la daal sama xarit la. am na lu bari lu ñu seq ci làmb ci moom xam na ko bon xaw ma sax quelle mouche la piqué pour vraiment mu tëb wax mais man làmb ji kenn mënu ma ci génne moom mënu ma ci keneen mënu ma ci génne làmb ji moom xanaa ku ñàkk couleur rek moo ma ciy jéem a génne. mais ñoom ñëpp am na fu ma jaar ñoom làmb ji tey ñoom ñëpp it sunu sañoon ma dellu si ci làmb ji moom sama doom la kay euh, Kaïré vraiment mu nekk aussi xale bu baax et puis que ñoom même suñu jeexalee ñoom ci làmb ji seen doom yaa ngi ci làmb ji bu nu bu nu yàq seen carrière doom yi c'est pas parce que tey nit ñi pare nañ ci làmb rek nga ni tey na na ci xëpp suuf euh, booy kay rek ay une belle écurie euh, les bérets verts xuma doomam ne am avenir euh, am na ñeneen ñu mel ni moom ñu ci nekk ñoo xam ne su ma sañoon duñ dugg sax ci affaire boobu parce que Alioune Sarr mu fi jógee mu fi toog su fi Alioune Sarr jóge woon tey keneen a fi toog keneen ku fi mën di toog it soo liggéey ñu kii ko mi ngi mel ne rek réew mi tey su tey am na ñoo xam ne tey président Macky Sall rek la ñu bañ suñu sañoon mu jóge fi dañu koy réclamer pour teg fi keneen xëy na kan fay tegee yées Sénégal c'est-à-dire suul ndaanaan la ñu man mais tamit ñoom ci tët. maa ko fi gën a yàgg li tax ñu may laajat Alioune Sarr maa ko jiitu ci làmb ji. mais ñoom jiite bi dañ ne doy na. non jiite pourquoi doy lan la leen déranger non c'est-à-dire même suñu koy wax. nana am audace su dem kër Alioune Sarr waxtaan ak moom wala yooyu mais euh, euh, jéem a toroxal nit moom moo baaxul. mais papa ñoom nee nañ euh, Gaston kii moo ko yónnee Alioune Sarr bu bëggee su bëggee bi mooy tey Alioune Sarr bu kiiwee rek. Gaston la ñuy yónni pour mu wax ndax euh, ñi ngi dégg ñi ngi dégg père père Kayre moom tamit mu ngi koy xam mi ngi ci doon sànni xeer naan Gaston mm. Gaston ay suq Alioune Sarr loolu yëpp te ñu bari ñu ngi naan père Gaston dafa toogoon génn na làmb ji jékki-jékki ñëw tey di défendre Alioune Sarr Alioune Sarr ji ba ba may dee ku ci wax ma dugg ci parce que nag euh, làmb ji nag man la man maay làmb ji waaw man mii maay làmb ji làmb ji ñoom ñi ci am teraanga ñëpp c'est parce que man duré naa ci làmb ji yàlla jaarale ko ci sama loxo yit ñoo am ciy teraanga ñoom ñëpp donc ku ma ci jéem a génne amoo amoo sax kóllëre ci tem Alioune Sarr mais Alioune Sarr du ma ko sax gis xam nga Alioune Sarr gëj naa ko gis fait des mois du ko sax gis mais nit ku baax la parce que seq nañu loo xam ni euh, ay teraanga la seq nañu loo xam ni euh, sequ gor parce que ki ngay soxoo kay mooy ki la ëppale wala ki ngay dem pour mu jox la wala ngay fay wuti dara man nag maa ngi sant yàlla bu baax Alioune Sarr dama xam ni dama vivre moom xam ni nit ku baax la clinique am mbay ñuy wax clinique am bi ñaata laa fa hospitalisé ay nitu làmb yoo xam ni soit may fay wala Alioune Sarr fay wala ñu fay 50 pour cent cinquante pour cent ay mbër ay manager ay amaat ay ñu bëri du ma tur ñoo xam ni tey Alioune def na teraanga ci làmb ji. même tey su arbitre yi de ko ne arbitre yi fi ñëw yëpp ku ci ne am na foo jaar ak Alioune Sarr nag lu ma xam lu ma fekkee Alioune Sarr nekk ak ñoom ci teraanga même sunu meree sunu meree nan nan dem waxtaan ak Alioune Sarr suñ leen suñ leen rajee wala ñu suspendre leen na def appel. mais ñoom nee na Alioune Sarr moom moom moo bañ parce que waxtaanu ak ñoom. non mais ñu def appel ñu teg ko ci yoon rek xam nga dañ leen a bind lettre CQRP bi moo leen moo leen suspendre am na droit def appel. ñoom arbitre yooyu ñoo defoon rapport ba nu suspendre Tyson pourtant mu gore toog jàpp njaabaram waxu ci te bu Tyson baa gënoon a metti dagg 15 millions suspendre ko des années mais dafa toog yiw teg ko ci yoon ba neen ko gracier mais dañu moom nit ñi arbitre yi moomuñu nit ñi. arbitre yi ba ba ñii di xeex tey ci làmb ji ba ñuy xeex arbitre yi daf leen àndoon nag ñoom di xeex. an ar leen. mbëri mbëri doon xeex waaw doon xeex arbitre dañ leen mas a xeex. Alioune Sarr voilà kon tey xam nga tey doo sax xam lu affaire bi nuru nan nan bàyyi nan bàyyi loolu Sénégal ñëpp benn lanu ñoo fi nekkoon démb nekkoon nag ñoom ci sutura ak teranga euh, lamb ji neexoon classe bi neex lépp neex ñoom ñëpp. Euh, ku ci ne mais di considérer sa bopp comme roi des arènes parce que ku ci ne da nga ci doon gis sa bopp bu xaalis bi jeex léegi nag sponsors yi ñëwatuñu làmb ji kii ku nekk ñu mel ni ñu jëfur ku nekk wax jaru ko fi parce que wax ji mënu la faj dara euh, ŋàññi nit mënula faj dara man kenn mënumaa ŋàññi ci làmb ji kenn amul loo ma ciy waxal dama clean dama ci set wecc. mais ñoom nee nañ euh, Gaston Mbengue moom moo yàq làmb ji parce que yow yaa nee am nañ ay sources yoo xam te ne sax Père Gaston moom moo fi njëkk a fay mbër ay millions. ay millions kay dañ ma war a tàccu. mais nee set da nga koo def ba pare génn làmb ji moo tax. non pardon euh, comme ñoom na nañ lool rek dañ maa war a sant tàccu ma ca loolu nu ma ko defee it man defuma ko sama coobare bopp rek yàllaa jaarale seen wërsëg sama loxo seen wërsëg la ñoom ñoo ko moom yàllaa ko jaarale ci sama loxo. mais yi nga fay moo tax léegi VIP yi mënuñoo wàcc suuf. waaw suñu wàccul ñu toog. nga ñu toog genre doomu Kayre boobu booy ñoom jéen Kayre ñëw nekk VIP parce que VIP yooyu dootul sax ay VIP ku ci bëriwul sa affaire ku ci bëriwul ci wax VIP booy yaa ngi noonu ñoom jéen genre jéen Kayre yaa ngi noonu genre genre ñoom. Euh, euh, nu mu tuddati caat bu Boy Bambara ay mbër ay euh, Serigne Ndiaye numéro 2 y a des lutteurs yu fi nekk te booy yaa leen di tëgg ay promoteurs yi ngi fi ñu ngi leen di tëgg ñooñu dana mas a àgg fii ñuy àgg mais nag nan yit it ku ci bëre ñetti yoon ñeenti yoon defe ni da ngay fekk ñële di laaj ay millions yoo xam ne amatu fi lu fi amul danga xam ne amatu fi dans l'impossible nul n'est tenu dañu war a gëm yàlla xam ni loolu lu fi jaaroon la mënatu la am. nan nan contenté wu ci li fi nekk actuellement ba yàlla indiwaat leneen parce que tey gis nga xoolal wax yu bon yi yëg xastanteeg yu bon yii gis nga tey yàlla mi ngi woon boppam ni ci corona bi nga xam ne ñun ñëpp moom la war a tal tey di ñaan yàlla mu génn ci monde bi génn ci réew mi génn na ci àddina bi dégg nga yàllaay wane boppam nan bëggantee nan ubbi xool yi yéenante jàmm yàlla defal nu jàmm je pense que loolu moo gën Alioune saar da fi war a jógee ak saar Sarr daf fay yàgg ak Alioune Sarr tel tel tel Alioune Sarr xanaa tey la fi yàgg def defu fi loo xam ni dégg nga maam te Alioune kenn mësu ko yóbbu police kenn mësu ko yóbbu dik kenn mësu ko yóbbu tribunal mi ngi doxal lam. ci bureau bi nga bokk. kan CNG ci laa kañ nga gëj a dem réunion. of xam nga man xam nga yaa ngi may wër bërki dem ba tey rek pour lii may wax mënoo maa jot. waaw mënoo maa jot. Mm. dama amee sama liggéey. làmb def naa ci lu nekk boole nañ ma ci bureau bi ca début ba daan naa dem tey jii am naa yeneen yu ma doon def et puis li may tukki dafa bari làmb du sama métier et tout ça mais maa ngi dégganteeg ñoom maa ngi dégganteeg euh, directeur administratif bi maa ngi wax ak ñoom et tout ça mais de réunion c'est pas le plus important dem réunion c'est pas le même plan léeg-léeg ñu ne euh, Gaston ak Aziz Ndiaye sax ci lañu bokk mais dematul. waaw ñu dematul bàyyi na làmb daa war a génn ci suñu làmb. suñu làmb xanaa dina war a génn ci làmbam ji Gaston moom làmb ji di. mais période bu may dematoo réunion. tëggatoo mais ñoom it amatul licence. kon kay ñoom nan bàyyi làmb ji. <laughs> yaa ngi ñëw yaa ngi ko ci ëppale. déet man maa leen ëppale parce que su ma neexee suba ma dem ak làmb ni mu mel. non non non ak nii mu mel est ce que xam nga demoon naa bay taxawal man maa doon taxawal Eumeu Sène ak Bombardier dama ba uh-huh. wax ak ñoom loolu mosuma ko wax kenn maa doon waxaale Balla Gaye ay Boy Niang kenn ñi ma ko tudd parce que waxuma ko tey yéen a ko jëkk yéen a jëkk am te yooyu yëpp pare woon na pour mu taxaw pour ren pour ren jii ñoom ñëpp xam nañ loolu ñeenti mbër yëpp ku ci ne wax na yow ku ci ne taxaw nañu ba wax presque bombar ak Eumeu seen moom dem seen CNG dem naa ba prêt woon ba jàpp dat CNG mais ak coow yu bari yi ak wax yu bari yii ak ku nekk kenn yéenewul sa moroom jàmm ma ni mais lii man bi may jóge ci làmb ay problème laa fi jógee ay bor lu ne fekk ma ci yàlla suturaal ma ba ma fay samay bor et tout ça parce que man làmb du sama liggéey làmb tax ma jaay sama magasin magasin prêt à porter bi gënoon rëy ci Dakar man maa ko moomoon 90 avenue Pompidou booba 90 91 92 ma dugg ci làmb ji làmb jee ma koy yàqal parce que gor su nekkee ci dara même su ciy dee na alal fajul dee gàcce lay faj ma nekk ci dem ba sponsor yëpp wóolu ma sponsor yi ma jox xaalis bu dul jeex ay may may euh, xaalis daan naa ci téye un milliard par an ci sponsor moo tax ñuy wax cent millions yooyu man leen cent million cent millions yi ma doon fay du sama xaa man yàlla moom ma joxoon wërsëg boobu wërsëgu mbër yi jaarale ko ci sama loxo ma leen koy jox te tuuma yéene woon leen koy itam bi may wax it di wax ne làmb ji day lor nit xale yi na ngeen def ndànk ci làmb ji nit ñi wax daka son dafa soxor dafa iñaan daf ci bëgg a def moom boobu man xam naa li li may vivre mais lima ma dal ak li ma doon vivre bëgguma woon samay jarbaat samay rak mu dal leen ba ma waxee wax ñu dëkkal ma fu ma dëkkul Gaston dafa iñaan Gaston dafa soxor man ku ma xam-xam ni soxoruma iñaanuma ñoom ñu koy wax itam xam nañ loolu sama kër gi fii dafa daan mel ni ngénte bis bu ne dafa daan mel ni ngénte milieu làmb mu nekk presque siège làmb alors parce que ñun ñëpp ko bokk ay ay sénégalais lañu ñu ne nee na dañu war a bëggante jàppante nekk benn. mais ba léegi yaa ngi leen di gis. mais looy koy gis mel daanu daanu man kay daanu ma ñoom ñoo daanu man ma daanu ñoom kay daanu euh. man man kay maa ngi sant yàlla bu baax. Euh. ñoom doon bëgga a daaneel tey génn naa fa. yàlla suturaal na ma ba fay naa samay bor maa ngi liggéey sama liggéey toog sama jabar bi ma demee ba nga xam ni ku dem ba daanu ba dem di wax di wax waxaale Balla Gaye ak Boy Niang ak Eumeu Sène ak. mais Père euh, loolu dafa neexoon pourquoi nga yàq ko. non ñoom ñoo ko yàq. parce que euh, nii ma gis. ma ni ñii su ma leen toppee topp làmb ji parce que mbër yooyu raisonnable woon nañu. Mm-hmm. Balla Gaye Boy Niang. Mm, Eumeu Sène Bombardier surtout Eumeu Sène Bombardier ñoom woon nañu ba jàkkooroon ci prix bu raisonnable et tout. Mm-hmm. mais ma xam ni su ma leen toppee aussi damay damay dellu euh, ci problème yi ma nekkoon ca su boobaa nag yàlla dana ma mere parce que ku euh, ku ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul da nga war a daw man nag ndóbin dafa rey sa maam ma ma gis lu ñuul bëggoon a yàpp lu ñuul li téye waat pour defar làmb mais lii ma gis ak yow yii ma gis ak yéenante musiba bii ma gis ma ni may ça ça vaut pas génnaat ci noonu laa bàyyee date ya ma jàppoon ca seen euh, jeeg yëpp. mais Pierre kon loolu rey na làmb mais làmb ñoo reyal seen bopp làmb parce que nit ku ne da ngaa war a gëm yàlla yéene sa bopp jàmm yéene nit ñi jàmm ñu yéenante jàmm ñu yéene réew mi jàmm réew mi ay ay defanteeg ay yàqanteeg ay xastante dépassé nañ loolu xam nga man maa ah, su ma neexee ma fi dàq xuloo su ma neexee maa fi dàq man ku ma wax ma wax la parce que man xamalul ma dara. mais léegi sedd. sedd sedd mag laa. mag laa dama dama sedd xam nga sedd sax a tax ma recevoir la nii tey di wax ak yow voilà. mais père beneen bi mooy dégg nga gars yi naan dañoo soxla ñi nga xamante ne ñoom ñu bees ndax barki démb sax ñu ngi dégg gars yi naan euh, Alioune Sarr ak ki nga xamante ne moom mooy suñu ministre Makhtar Ba nee na ko bandum la ñoom ñaar ay Fatick waa lañ. non non non c'est pas vrai yàq noonu Alioune Sarr mu bëggee dem yàgg na Alioune Sarr moom bëggoon naa dem mais su demoon booba it xam nga lu ñuy wax. Alioune Sarr dafa nekk ba Matar Ba ñëw ci fii ñu bokk dëkk Fatick mu dem bàyyi ko bàyyi ko. ñoo bokk Fatick. waaw ñoo bokk effectivement. ñoo bokk non ñoo bokk Sénégal fii man li ma seq ak euh, li ma seq ak Matar Ba Alioune Sarr seq koog Matar Ba. yooyu nan ko bàyyi Matar Ba day liggéey li muy liggéey xam na fu ko teg ay ay coow ay pression mënu ko yëngal xale la Matar Ba di ministre di def liggéeyam muy dox fépp. discipline yëpp ngay dox muy football bi muy lépp a ngay dox làmb jee yëngatu yëngal yëngatu googu làmb jee yëngatu nag mënul la yëngal mënul la euh, jox pression Matar Ba pour muy def lu mu warul la def kenn mënul yooyu yooyu nañ ko bàyyi ay ñoo bokk dëkk ak ñu fii ñëpp a bokk dëkk ñun ñëpp senegal lañ dëkk kenn pléwu kenn nan bàyyi affaire yooyu affaire yooyu mooy affaire u seytaane affaire u naafeq affaire bu jaxase ay nit ñu gis ne arbitre yi instant bi ñi leen soutenir bari nañ ndax barki démb ñi ngi dégg euh, Gris Bordeaux xam nga dégg ay ñeneen ñoo xam ni père te ñu bari ne ñoom ñëpp dañuy xeex ni yaa fàtte am na benn association bu fi woon mbër yi ak ki nga xam te yi bañ na doy nañ pouvoir bi bi ñoom ba ñu ak ba ñuy xeex arbitre yi jàppalewul leen ñoom li ba ñu juddoo ak ba ñuy xeex arbitre yi jàppalewul leen di arbitre yi boobu ñoom CNG di jàppale CNG di tax tey xam nga bëgg bëgg xeex ak bëgg bëgg jaxasee ay ak indi coow moo tax ñu ñu ni mënuñu cee lekk xëy na nañ ci xëpp suuf at bi yaa ngi xeex seen xeex bi na leen ci jàppale parce que xeex ba nuy xeex Alioune Sarr ci leen doyleegul ba léegi loolu xeex nag sooy xeex te doyle woo tey ay jinne sax suñu ñëwoon di xeex ñu ànd a jinne yo nekk ay jinne comme ñoom di xeex mais Père yaakaaroon tamit arbitre yi ñoom li ñuy xeex tamit nekkuñu seen droit parce que tamit nee nañ li ñuy xeex assurance Père ak yi nga xam te ne xaalis bi nga xam te moom leen di moom leen leen. assurance ñoom li tax assuré wu mais na def assuré seen bopp man promoteur bi moo ko dekkee dama assuré woon sama bopp. kon ñoom arbitre ñoo non même même effectivement na def mbër yi di ñooy assuré seen bopp mbër yi ñooy assuré seen bopp dañu fay assurance arbitre yi nañ dem fay assurance bu ñu dégg xaalisu làmb ji ñuy wax ni ñun ci ay risque la nekk ak dañuy guddi su làmb tase mën na noo dogaleeg ñu bay su fekkee ne risque man su ma xamee ni su ma jaaree ci yoon wii ñu rey moom du ma fi jaar. bu nu dégg xaalis bi mbër yi simmeeku di futteeku di reyante di ci daj lu ne ñu def xaalisu mbër yi ñu defe dana war a am à peu près lu day noonu noonu nan liggéey xaalis ko bëgg da ko koy ñàq da nga liggéey mais ñoom li ñuy def seen ñàq la mais mais c'est le sport arbitre yi bari nañ fi arbitre discipline yëpp am arbitre mais du benn non dama ni discipline yëpp am arbitre discipline yëpp am arbitre arbitre euh, ñoo defoon rapport bi ñu suspendre tey jëm arbitre yi yëpp toujours ñaata yoon la fi mbër wala manager wala nitu làmb xalab arbitre ni sama mbër daanuwul sama mbër lii arbitre yi ka ñaata yoon la xalab arbitre yi donc tey tey nag tey comme ñoom dañoo nekk ci xeex arbitre yi far jël xeex ñu ne nañ solidaire ak arbitre yi pour euh, ki nu bëgg mu jóge fi mu jóge fi mais c'est pas comme ça nit ki nan ko nan suturaal dafa baax nan suturaalante. mais père ñu gis si moom li ñu wax gars yi ak li nga xamante ni moom la am ci expérience bi dem fépp arbitre combat bu dul kon combat ji ne père tamit. arbitre na ko Malick Ngom mais nee ñi fi nekk ce sont des arbitres locaux. suñu deewoon tey nag ñun nee indispensable ñun ñëpp man mi war naa dee tey dee woon loolu lu ñu nul nee indispensable suñu demoon ñeneen nekk fi et puis suñu expérience bi ñuy wone nan ko wone ci seen comportement. c'est pas parce que ñoo fi def lii wala ñoo fi def laa wala arbitre international que dañuy toog ba nit ñi toog ba un vendredi ñu taxaw ni dañuy grève mel ni kuy chantage des maîtres chanteurs c'est pas possible. mais neen arbitre yi fi nekk ñoom ay ay ay arbitre locaux lañ jànguñu lu ñuy def xam nga. ñoom ban fi soog di nekk danoo jàngoon dara làmb arbitre làmb gën a yomb fi xanaa man sax ku jox ma arbitre làmb waaye yow arbitre làmb toujours ñu ci erreur toujours ñaata mbër daanu fii ci erreur. ñaata combat sans verdict a fi am ñaata komba yoo xam ni dañuy joxe ñoom ah, kii ba pare ñu dem visionné waat combat bi daa euh, jox beneen mbër bi victoire bi ñaata yoon yéen a ko fekkee ah. way bari na bari na lu baax boobu Moussa Gueye bari na alors nan rek la waaye nan nan bëggante moo gën. mais man. Mm-hmm. ah ñu dellu seen xel ñoom ñëpp amul amul fii kenn mënu fi teg kenn pression kenn mënu fi dogale kenn kenn mënul dem kër Alioune Sall génne ko dee démissionné par force kenn mënul ñëw ni Gaston noppil da ngay noppi par force kenn mënul ni diw tel tel fii kenn moomu fi kenn mais nan bëggante nan nan suturaalante c'est ça problème. père lamb sponsor yi daw nañ et puis danoo danoo rek lamb ji daal xaalis bi amatul gars yi salit. saalit rek a ku nekk yi mbel-mbel yi di wax. Ah. danoo saalit saalit rek la du leneen saalit la làmb amatul ñoom ñëpp ñee ngi ci cinquième année blanche quatrième année blanche troisième année blanche ñu saalit mais yàlla jeexul nan muñ ci xaar yàlla yàlla yàlla day ñëwaat léegi saalit bi jaru ko. ñu gis ni king lañ la tuddee woon nga nekk roi mm. léegi nan nga gisee promoteur instant yi fi nekk. njàmbaar lañu ñu ngi góorgóorlu mais nan def attention man li ma daal bëgguma mu dal leen. Hmm? tey làmb promoteur yëpp presque yu mag yëpp presque am nañ ci problème ci problème yoo xam ni kenn mérité wu ko ci ñuy ñaanal Petit mbay mu dellu soir ci dëkkam bi lu baax rek la fi def li ni ko lay ñaanal ko vraiment président de la république sax euh, gracier ko ñu dellu si ci làmb ji mu jeex parce que lépp loo gis ku ne tolof tolof mën naa dal ku ne kaso ak bàmmee la yem jombul kenn ñu bëri gi tëdd ci kaso bi ay innocent mook bàmmee la yem jombul kenn nañ koy ñaanal mu gën dafa naa dox ci loolu moo gën ci dox ci jéem a toroxal nit dafa naa ne doy nag yooyu yow kay li ma lay ñaanal léegi nga dem wuti jëkkër te bàyyi lamb ji nga topp dama nga wuti jëkkër dama nga wuti ci mbër yi wala ci arbitre yooyu nga xam ne ñoo lay gëstulu wa xale soo soo tu tuuti lamb ndax góor amatul voilà pénurie góor dafa am dama nga wuti jëkkër Père Gaston kontaan naa ci maa gën a kontaan ci yow. <laughs> taw oh, euh, nga ndeysaan du mën a ñàkk ndax préparé woon naa ko ndax avant ma koy dama ne koo karaj mu xas ma ba pare tey ñëwaat na mais lépp nag ndeysaan ñu koy remercier bu baax a baax parce que xam nañ ne amul jot mais def na lépp lu mu mën rien que pour nous faire plaisir kon li ma koy wax rek internet yéen yéenay roi yéenay reine lépp bëgg rek ah dañ def Père Gaston lañ leen indiloon dégg nga waxtaan bi mais nag fi mu mujjee dégg ngeen li ma wax neen ma wuti jëkkër yéen nag yéen yéenay jugé quoi ndax man Père Gaston man mënuma wax moom dara mais encore une fois di ko ñaan rek gudd fan ah yàlla aar ko ko parce que lii tamit yombul kon ni ma koy wax rek waa wasaare lamb wasaare TV di leen wax rek wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ah feebar bi nga xamante ni moom moo fi nekk yàlla na fi jógeeg jàmm ak salaam wax dëgg yàlla ndax tamit Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te nee naa leen incha allah am na loo xamante ni dafay kii rek mais gëm naan daal comme que moor amagu fi rek di ñaan yàlla mu bañ fi am dëkk yi nga xamante ni fa la am tamit yàlla kii daal mu mu kii daal mu dem xam nga suñu làmb ji mën a ñawaat liggéey ñi war a liggéey dem liggéeyaat parce que gis nañ lépp dafa taxaw daal mais daal yàlla bari na sutura yàlla nañu yàlla suturaal euh, l'infatigable ma lay nuyuwaat bu baax a baax Bassirou ah gars yi rek xaaraat leen ñi dañuy dugg ci ruq-ruqaan yi rien que pour indi leen li nga xam moom lañ soxla. Pegaso yaa maye sax. waaw waaw man ko indil ma rek ma may la moo gën nga topp téye sa micro bi topp di wër yi mbërëk yi manaat yeeg yi nitu làmb dama nga wuti jëkkër